jëf mbokk Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen tey nag euh, daje bi wala jàkkaarloo bi li ka waral moom mooy combat MMA bi nga xam ne Bombardier war na ko def le 20 mars bi di ñëw contre euh, Marie Maris Pudzianowski combat boobu nag war a amee sa Pologne Bombardier war a jógee Sénégal euh, dem Pologne fekk fa adversaire bii nga xam ne moom mooy Pudzianowski ci combat boobu nag prétexte boobu lañ jël dalal ci benn expert en sport. expert bi nag moom mooy coach Diamo ñu gën ko xam à chaque fois su combat amee ñu koy jox kàddu pour muy def analyse combat bi tey nag ñu gën ko pour ñu defal ñu benn analyse combat bi nga xam ne nii war na dox ci diggante Bombardier ak adversaire am léegi première question bi coach la doon wax rek boo ñu mënee defal benn présentation bu ndaw ci kan mooy euh, Marius Pudzianowski. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora bi fu waay mën a nekk. donc euh, di nuyu waa Sénégal bu baax a baax a baax a baax a baax donc euh, di jaale ñi nga xam ne génn nañ àdduna si événement yi nga xam ne amoon na Sénégal at di mastaw aussi ñi nga xam ne euh, am na si ay blessé donc yàlla na leen yàlla dimbale bu ñu delluwaat seen njaboot donc di nuyu waa Leewtoo yëpp ak ñi koy seetaan ñëpp si site bi donc vraiment bëggoon ñëw rek si combat bi nga xam ne MMA entre Bombardier ak Marius Pusdane donc euh, Marius Pusdane nag moom polonais la polonais la ñëpp xam nañ ko ci monde bi parce que si espoir bu muy def mooy l'homme le plus fort au monde donc euh, yooyu gagné na ci plusieurs titres donc 2000 2002 2003 2005 2007 2008 donc il a été l'homme le plus fort au monde donc voilà donc nag euh, comme espoir boobu daaw si gagné xaalis bu bëri dafa dem dugg si MMA bi MMA bi nga xam ne euh, vraiment lu ñuy fay jar na ko donc voilà mu am si plusieurs combats yi nga xam ne am na si ay victoire ah donc am na si ay défaites aussi ñëpp ñu xam ko nag ñëpp xam nañ ko euh, biir réew ñëpp xam nañ ko si monde bi si parce que si espoir bu mu dem def donc euh, war a dajal nag ak suñu frère Bombardier Bombardier yi nga xam ne def na lu nekk si làmb Bombardier bi nga xam ne dugg na MMA parce que tey dañ koy jëloon jikkoon parce que tey sénégalais yi tey suñ demee ba xam MMA bi siy dugg tey moom la at euh, Rocky Balboa. Euh, merci coach euh, présentation bi complète na rafet na également mais deuxièmement pour Bombardier pour yow Bombardier yan stratégie la war a teg pour que contre adversaire am bi moo ci am victoire. donc voilà combat bi. da koy lancé waat parce que Bombardier euh, day dem fekki Pologne donc euh, voilà lu ma koy wax si combat bi mooy moo gën a njool waa donc euh, su ñëwee rek naka attaqué waaw bu mu réfléchir parce que adversaire am day attaqué moom tamit ah. te am na crochet bi nga xam ne dafa redoutable mooy crochet droit am ah donc fu muy jógee dafa dafa sori te am day am puissance ah donc euh, Bombardier na lever bi ah moytu crochet bi donc voilà mais euh, Pugilan moom euh, dina wekk tànk xam naa si combat bi arbitre bi suy soufflé dina daal dina jéem a dem si Bombardier pour indi xeex mais Bombardier mu ko topp si loolu Bombardier na ko ñëw rek avancé jàppanteek moom dóor bi si suuf ñëw enchaîné. le ground and pound su ñu nee ground and pound moom mooy bloqué waa ji di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba waa ji abandonné donc conseil boobu daal laa koy jox ci combat bi. d' accord euh, léegi euh, Bomba Dieng dañ ko xam euh, ci làmb nekk na roi des arènes deux fois daane na fi ay ténor yu bëri làmb ban impact exactement la am ci MMA est ce que sa technique làmb mën la permettre. nga am wala nga dem fu sori ci MMA. donc xam naa ne moom euh, suñu suñu làmb bi am na njëriñ si MMA bi parce que si jàppante la te lutteurs yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi bëre yaramu ne la ñuy def donc voilà loolu euh, plus la si MMA bi donc en même temps bëre bi. xam nga dina am ay tabaxal dina am ay faussage dina am ay ay ay ay yenn bu si kaw teg si suuf padd yëpp yooyu yëpp mu ngi si mu ngi si mu ngi si MMA bi te loolu plus la donc at xeex bi tamit ah donc Bombardier na lever bi ñëw attaqué ko yenn bu si kaw ground and et puis après bu jeex si cinq dernières minutes yi nag naka def parce que waa ji waa ji dina xam Bombardier lu muy indi sa veut dire que euh, Bombardier jàppante bi lay bëgg te waa ji dina ko xaw a dawloo parce que nag xaw a dawloo ah donc mais waa ji xam naa du si du si du si yàgg parce que condition condition physique bi des na ah donc xeex bi tamit des na parce que amul garde donc euh, euh, même si au sol am na point faible donc voilà donc euh, Bombardier daal bu mu posé wu question na ñëw mu ngi commencé am expérience si MMA bi na ñëw ah yenn bu si kaw teg si suuf ground and pound mu jeex. Et voilà. Donc voilà, di ko souhaiter une très bonne chance. Hein? Donc euh, vraiment, ça me fait plaisir. Mais voir si ay MMA, surtout c'est que que waa Leewtoo TV donc euh, di gërëm ñëpp di ziar ñëpp. donc vraiment di di ko wax bonne chance ah bonne chance bonne chance bonne chance waaw yal na ko yàlla may ndam bu sedd guy te wóor na ma ne lu ma ko wax su ko defee combat bi du du sax. ay cinq minutes. bu daane adversaire bi wala bu gagné adversaire am bi di Pudzianowski bi yan porte la koy victoire boobu di ubbil ci MMA est-ce que à de cette victoire mën na atteindre UFC wala day xaar ba ci waaw mais ñëwaat toujours si euh, si si Bombardier donc euh, de toute façon Bombardier amatul dara lu muy prouver si si si wàllu euh, bëre si wàllu MMA bi tamit aussi. parce que tey comme ni ñuy wax rek Bombardier moo moo ko Rocky Balboa ñoom ñoo xal yoon bi ah ñoo xal yoon bi tey soo xoolee euh, si monde bi ñëpp ñëpp léegi xam nañ leen ah donc euh, voilà si seen combat bu bu ñu def et puis tamit aussi combat bu nga xam ne def na ko fële Angleterre donc euh, loolu may na ko vraiment may na ko tur ah, may na ko tur ah donc léegi ñëpp xam nañ ko donc bon. mun na def mun na def ah dese na ko ba léegi donc dina continuer carrière am donc dina am yeneen combat ah. donc voilà mun na dem sax si euh, si comme euh, comme UFC donc voilà mun nañ ko proposer ay combat parce que ñëpp xam nañ ko léegi donc euh, vraiment foofu côté boobu moom au moins si benn benn benn xalaat pour pour moom quoi donc voilà waaw. merci Gourtou analyse am na solo rafet na xam naa bu ko Bombardier eh, bu ko Bombardier defee war na ci am àndam ñu koy ñaanal également combat bi mu jëm yàlla defal ko ci victoire bu sedd guy wax parce que bu ci amee victoire victoire sénégalais yëpp la ñu lay remercier bu baax a baax a baax ci analyse rafet na pertinente na di jox di jaje euh, internetu Leewtoo TV ci yeneen jotaay yi incha allah jërë